jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen di ànd ak seen seen bi di Timis TV xam ngeen na nag ci àllarba ji amal nañu li nga xam ne moo di CDD bi waajal màggalu Touba 2018 ci njiitu euh, Mamadou lamin maane mi nga xam ne mooy préfet département bu euh, Mbacké Bawol fego ak Serigne Ousmane Mbacké mi nga xam ne mooy coordinateur grand màggalu Touba ci ndigalu Serigne Bassirou Abdou Khadir mi nga xam ne moo jiite comité d'organisation bu màggalu Touba waaye it euh, ràññee nañu fa bu baax a baax ñaari maire yi nga xam ne mooy maireu Abdou Lahad Ka di maireu euh, Touba Mosquée waaye itam Abdou Mbacké Ndaw mi nga xam ne mooy maireu Mbacké Bawol ñoom ñëpp teew nañu ci kanamu it chef de service yi nga xam ne ñu ngi ci diggante Mbacké ak Touba ñu mën ca ràññee euh, police ak gendarmerie waaye douane nag sapeur pompier ñi nga xam ne ñooy eaux service commerce transport Euh, hydraulique santé AEMO ak euh, ñi nga xam ne mooy service social ñu euh, maaw rahmat yi ñoom ñoom it ñoom ñëpp teew nañu fa ak ñëpp ñi nga xam ne rek seen taxawaay nekk na loo xam ne service di seen seen taxawaay nekk na loo xam ne lu mënta ñàkk la ci wàllu màggalu Tuuba ñu door waxtaan wi rek ci yor-yor bi mën nañu wax ne ay jamono fukki waxtu waaye waxtaan wa dem na ba mën nañu wax ne vingt yu moins tuuti daanaka ci la waxtaan wa euh, euh, jeex ci euh, loolu nag di leen fàttali rek loolu am na nag ginnaaw bi nga xam ne. amaloon nañu ca eh, jamono yële weesu li nga xam ne mooy CLD bi di comité local de développement bi nga xam ne tey CDD bi moo ci topp te ki ko jiite niñ leen ko waxee di eh, préfet Mamadou Lamine maane kon noonu la fa amee ñu topp nag eh, banqaas par banqaas waxtaane lépp loo xam ne rek jëm na ci màggal gi ak lépp loo xam ne rek dina tax ba nit ñi mën a ñëw màggal ci jàmm waaye delluwaat ci jàmm ku ci nekk rek la cay sa cër ñu waxtaane ko lañ ca soxla ak la nga xam ne moom la euh, bis bi laaj ñu waxtaan ca euh, point par point kon euh, bi loolu jeexee tamit ñu daal di def li nga xam ne rek mooy kàddu yu mujj yi nga xam ne mooy tënk lépp li nga xam ne waxtaane nañ ko ki nga xam ne mooy Serigne Ousmane Mbacké di wax ci turu comité d'organisation wax nañu leen ne moom mooy coordonnateur bi moom daal na yëkkati ay kàddu lii la wax yitte yépp li ci jiitu muy sécurité ci mënu ñàkk wér-gu-yaram ndox ak yeneen ak yeneen communication yooyu yépp abordé nañ ko di séentu nag ak yaakaar ju mat sëkk ne yitte yi ñu ci am yépp te yéen ñépp ngeen am kenn ku ci ne ak responsabilité ba mu yor mu am yéene faj yitte jooju yàlla dimbali nu mu sotti ci jàmm ñu am ci ndam ñu kon ñi ngi ñaan daal yàlla dimbali nu ñu taywaat ko déwén te màggal gi mu am ci ak yokkute bu bu bu fees bu ñëpp xam bu am ak bu ànd ak ngi ñaan ci dara ji borom màggal gi di seexul xadim ci dara ji kiy taxawu màggal gi di seex Mouhamadou Mountakha xalif général di Mouride eh, di sant yëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah bi ñu déglu sëñ Ousmane Mbacké ba pare it euh, ki nga xam ne mooy euh, préfet Mamadou Lamine Mané moom tamit euh, wax na ay kaddu yoo xam ne nii tënk na ko moom it ci li nga xam ne mooy cëram ci bés bi ci wolof waaye ba mu noppee it toftal na ca kàddu yi français xam naa rek ñu baaxee ko mbokk yi nga xam ne it yitteewoon nañu ñaari version yëpp. donc il y a nekk ci CDD du waajal màggal bu mag bi boo xam ne mooy édition 2018 ñu ànd ci ak euh, donc autorité administrative donc donc euh, yu nekk ci département bi euh, CLD pour Touba sous-préfet pour Ndam jiite ko nga xam ne moom dafa defoon fi benn réunion sax donc di waajal lii tam fukki fan ak ñaar ci weer bi tey fukki euh, ñaar fukki fan ak juróom donc ñu ñëw fii tey ak CDD jarul ñuy guddal ndax ci suba ba tey donc dañu nekkoon fii di càmbar donc ak xayma donc lu ñu tuddee paramètre loo xam ne loo xam ne yëpp dafay dugg ci euh, réussite màggal grand màggal donc. Euh, waxtaane ko yëpp donc pour ñu am màggal bu ci ay donc def nañ ko te am na ay euh, question yoo xam ne gannaaw sécurité donc dañ fi def ay dënkaane yu am solo muy wàllu ndox wàllu ndox ci poñu euh, ndox yuy taa beneen bi mooy ndox bu ñu naan ñu bàyyi ci xel euh, sécurité bi nag tudd nañ ko fii ay santé hygiène ak énergie paree ci liggéey bu mel nii du ma mun ludul donc euh, ne jaajëf ndax comme nuñ ko waxee benn loxo du tàccu donc dañ ci andi ñun ñëpp muy service technique concentré yu département bi yëpp ñu andi ci ak force de défense et de sécurité ñoom ñëpp ak société concessionnaire yi suñu partenaire yëpp aussi donc ñu ngi leen di féliciter di leen remercier waaye mënuñu bañ a donc remercier ak féliciter messieurs les maires

pour que cette édition 2018 une nous dinañ def lépp loo xam ne état def donc pour nous, mun a réussir la séance est merci. Aujourd'hui, euh, on se réunit en CDD, comité départemental de développement. Euh, un CDD consacré à la préparation du Grand Magal de Touba dans son édition 2018. Euh, cette la réunion a été précédée, il faut le dire, il y a quelques jours, le 12 juillet, par un comité local de développement convoqué par le sous-préfet de DAL. Euh, en résumant seulement, il faut dire que euh, le CDD nous a permis, avec tous les acteurs réunis, d'examiner finement toutes les questions, tous les paramètres, donc sur la base de l'introduction faite par le sous-préfet de DAL. Donc cela a donné lieu à des discussions très approfondies qui ont permis de développer des priorités, parmi lesquelles il faut citer la question de l'eau et la question de la sécurité. Euh, en tout cas, pour faire court, il faut tout simplement dire que nous sommes très prêts hein, pour faire tout ce qui est euh, possible pour que cette édition, l'édition de cette année se déroule euh, normalement euh, nous tenons à remercier tous les acteurs confondus, que ce soit les acteurs de l'État, les autorités euh, territoriales, mais aussi les membres du, conseil, euh, du comité d'organisation du Grand Macal de Touba et bien sûr vous de la presse qui, depuis ce matin, êtes ici avec nous et donc relayer l'information à l'ensemble des Sénégalais. Je vous remercie. kon euh, loolu rek mooy li nga xam ne jëlalee nañ leen ko ci CDD bi nga xam ne moo am ci àllarba ji ci euh, fi nga xam ne mooy mairie bu euh, Touba Mosquée ci niñ leen ko waxee rek njiitu kilifa yi di leen jaajëfal bu baax a baax ci topp bi nga xam ne yéen a ngi koy topp ñu di leen ñaanal jàmm te di sàkk ngeen ñaanal ñu jàmm ñu àgg ci bës ba ak jàmm jërë ngeen jëf